léegi ndeyloo soo bettoon Pawlish ak jigéen. nan hmm. jii nii ku jigéen ki dama koy soode dama koy soode xëpp ko ndox mu tànk waaw. kon yow bu ko tey jii Pawlish bu la takk la xam nga nee nga nee projet de mariage. Hmm. xam nga. Hmm. bu ñëwoon takk la. ah bu demaat xoolaatee keneen. takkaat ko kon yow doo nangu loolu. non kooku noonu. dina xaw a war dof laax benn. boobaa duma nekk di wujjee ak moom de xool am na ñoo xamante ne hmm, seen xol yi day ndaw naa ko jàpp di ko loo ci biir kër gi ba mu bàyyi ba kër gi dem maap dem yoon xam nga. Ndéeló xam nga lan moom jaar. pour ni mu neexee. nekk nit ni mu neexee. Mhm. yow nga jékki-jékki ne yow dof nga mais ku nekk sa look kon tey jii nii kii mën na ne man américain laa bëgg a doon kii ne man tubaab laa bëgg doon. kii man nit laa bëgg a doon man dof laa bëgg a doon ku nekk la nga choisir dof laa choisir ah kay dëgg neexul. ah kon daal yow daal dof daal nga bëgg. mais dof dafa neex. ndeylo dof kenn du dof di nga ko liggéey di ko jàpp di ko kii nii euh, di valanteeg moom yooyu na xam nga dof dafa da ngay am sa jàmm da ngay caractère dof dafa neex. quand ah, même ah, kon yow daal loolu noonu nga ci daw. moo tax daw ma ci lool de ah. man. ku nekk li ngay rêvé bu ma doon jàng dama doon rêvé pour nekk dof bu ma màggee bu ma tekkee nekk dof nekk ambassade de dof yi damay neex xam nga damay touché xam nga mooy loolu. foo doon jàngee. man Géejawaay la doon jàngi école fa. Géejawaay nga dëkk. oui notaire. Hmm? tali koro bi. Ndeye Lo problème ak Adama nu demee. kooku kii la. nu mu koy waxee medd la moo xam moom xar bu dee. aaruma dafa mel xamal na la de. xamal bu ma xamalee na ko génnee fii de Sénégal njaay kenn mu fee taxaw ne loolu naa ko lii wala mën naa ko génne lii wax ay falaa falaa gis benn preuve. aaruma yor na lomotif. gàcce nga laa ma daa yor lomotif na ko génnee. Hmm? moom fu ma taxaw naa ko wax bu dee daa yor lomotif na ko génnee. Mhm, dëgg la Adamo dafa yor sa lomotif yaa ak Paliss Mbaye. Mhm. wala mu noonu. non yoru ko yoru ko moom moom ci boppam nit ñi dañ koy fay pour mu def ay mise en pour ay vues xaalisam da ci intérêt am la léegi nag loolu lañ bëgg a wax sénégalais xam ne loolu du dëgg lu mu def lu mise en la nit ñi dañ koy fay pour mu leen wëtal buzz wala leen xaawi sutura jàmbur pour am vue noonu la demee am na loo seq ak Pawlish Mbaye hmm. ba tax mu moom dara lu dul jàmm ñu nobante man ak moom hmm? Hmm? bëggante di waaje sëy man ak moom foofa toj mais du budul loolu du dara loo xamante ne mën na ma kaa yoreel ka ñun ñoo teg diir boobu noonu te gisoo aar moom kaa yi mu yor day yor ay kaa yu bees mais kaa yooyu yëpp dara du ci dëgg yenn bu nekkee dëgg bu bu nekkee quinze bi yi du dëgg cinq yu ñooy dagg. te ñooñu day da leen di fay vidéo ñooñu dañuy def vidéo naa leen wax loo xamante ne xamoo leen ko ci moom. Mhm. comme day fay ñii ñi bu fayee nit ñi comme ça daal nu mu ko mën a waxee moom ci boppam hmm, day fay nit ñi pour ñoom ñu def vidéo pour di ko yónnee pour mu lu mu kaa bu am lu mu kaa commencé fay bu toogee deux semaines yu mu kii dina créer dara noonu la demee man ruusuma. tamit fu ma fu ma neex ma naa taxaw wax ndax damaa wóolu sama bopp. yow xamante ak ah, fu ñu xamante ak moom kese. que hmm? téléphone whatsapp rek. ci bi nga jëlee numéro sax ma avant may jël numéro xaw ma ne woon nii lay def ensemble sax dama ko daan dégg nii ñi naan Adamo nangam après sama benn xarit ne yor naa numéro am ak yooyu man ko jox ma ko boobu sax aw woon bës nii. après ma woo ko noonu di ko dofloo xam nga mu may saaga foofu lañ moom ba xamante mais dama supprimer numéro moom tam amatul sama numéro. dañuy hmm. toggee ba bés bi ñëw nag mu daal di wax Griff Diouf na ko jox sama numéro Griff daa koy jox sama numéro après mu commencé ma envoyé message dama kon yow yaa ma doon naa xam nga ñuy waxtaan normal léegi mu commencé indiwaat ay yeneen. Hmm. xam nga rek ma wan ne ko gën a doof wara léegi Ndeye Lo dafa ëmb loolu lan nga ci mën a leeral Sénégalais dama ëmb. ah ku ma gis biir tamit. Hmm? na ko photo wane ko. ah nañ temps yii passé naa Ndeye Lo dafa ëmb dafa ëmb loolu la nga ci mën a wax Sénégalais jàkkaarloog Sénégalais wax leen fulla en tant que dof. en tant que dof. waaw que tey jii nii bientôt il a kii une fille bu ma sëy jee. mais comme nii muy célibataire loolu lañ ko mës a gis mu day loo ëmb genre di mbàcc mbàcc xam nga non. nga sëyi ji fan. sëyi xanaa devant maamari maamari kay instant bii nii wala sëy ko sëy sëy bu baax kay ah dëgg neexul. mais Ndeye Lo yaa Pawlish seen doom. rafet de. ñu Sénégal jam kanam. am na am seen doom moom Adamo ngeen koy tuddee ndax yéen yéen ñett. yii yàlla tere. Ouzin Keita sax Ouzin moom dañ ko tuddee doom ji. ndax dara sax xaritu Pawlish la mais kay su ma amoon doom boo xamante amuma sax ku ma ko tuddee. Hmm. tuddee ko xar yeeg bëy yi sax moom ko gën a mu ko ko te xar yeeg bëy yi dama leen bëgg xam nga def naa vidéo sax su ñoom dama leen bëgg je t'aime beaucoup ma ñuy toroxal ay xar ak ay bëy. Jampa. léegi Ndeye Lo yaay chéri Pawlish mhm. mooy bête noire Ouzin Keita. Mhm. ah léegi yow sa relation ak jàmm lañ sekk hmm? xamante nañ mais jàmm lañ sekk mais na bàyyi sama jëkkër ji ma jëkkër ji du moroomam xam nga nit day waxante koo xam te mooy maasam moom du maasam. moo ko gën a jantal moo ko gën a boo moo ko gën a intelligent comme ni ko xale yi waxee mooy loolu Ah, maa ngi dégg ci commentaire yi gars yi ñu ngi naan Ouzin Keita moo gën a jantal Pawlish Mbaye moo ko dàq gën ko boobu. non non loolu moom dama ko mos a nangu mos a nangu. Hmm. Mhm. mais est-ce que nekkul di la nax il faut. non non mosuma nax jigéen boo ko naxee xam na boo ko bëggee xam na ko boo ko bañee tamit xam na ko ku koy nax tamit xam na ko te je t'aime je boppam. yow yëpp sa bëri yëpp da nga jël rek teg ko ci Pawlish Mbaye daal. billaay sama lépp sama àdduna sama lépp. Ndeye Lo ngi mhm. yaa ngi noonu léegi lan ngay wax oh, di ko wax moom xool benn jigéen xam nga. Pawlish am na 14 gel ak yow muy 15. 14 gel. waaw yëpp dañuy xaar man ma wujje man ku nar a wujjeeg man. Hmm? devant du ma la dóor du ma la saaga mais dinaa la ñef di la buntu xatal hmm? xam nga di la dofloo. jàpp nga bàyyi kër gi dem mooy loolu. lan Sénégal. Sénégal ah di leen wax nañ nekk jàmm nañ nekk si jàmm xam nga ñu bàyyi xeex ak ngaay ba pare nañ nañ wàññi mburu bi ngir yàlla mburu bi nañ ko wàññi mburu bi man damay dama dama xëy dama xëy nii rek ñu ne ma yokk nañ mburu bi sama fi jour boobu sax añu ma ndax damaa jooy toroxlu mburu waruñu ko woon dañ nii nga war a wàññi waruñu koo yokk